non xam nga lu tax. waaw lu xew. Euh, yéen fu ngeen ko tegoon non non damay dem seen autorisation. non gis naa ñu autorisé di ko. xam nga man est-ce que dama koy dàq. mars kenn di ko autorisé dañ koy interdit. Hmm. loolu dañ hmm. ciy juboo ba pare. su fekkee ne réew lañu ñu ci ndeyu àtte ji la ñuy wax. dañu ko jëlee ci lees yi tàggoo indi ko ci lu ñuy yëgle. Hmm. ñu ne yow caaw li maanaam préfet bi wala gouverneur bi. Mm-hmm. aji dox kat ñaxtu bi bu fekkee dafa ñëw ci yow yëgal la ne day dox mm. maanaam amal gi maanaam autorisation bi c'est automatique si niñ ko bindee boo ci sukkantikoo moo tax ma ne la mars duñ ko autorisé dañ koy interdit moo tax baatu autorisation ma naan mars kenn du ko autorisé parce que autorisation bi bi nga respecté délai bi muy gën ngaa bari fukki fan ak juróom gën ngaa yées ñetti fan c'est automatiquement autorisé wala yow préfet bi gis ne daf ko war a tere muy interdiction ñu ne ko mënoo ko tere lu dul mu mën a am risque réel de trouble à l'ordre public hmm. cumulatif maanaam risque réel à l'ordre public képp hmm. doyut day hmm. fekk mu mën a am pëccëxoo ba noppi te doo am takk der yu ko mën a encadré moo tax ma ne la bu la tey jii du nuñ ko interdi soo demoon léegi bëgg koo amal fekk fa junniy takk der. te fekk buñ ko boo ko doon amal ci euh, terewuñ ko téeméer day doy wala ñaar téeméer kon préfet boobu wax na lu dul dëgg parce que dafa ne li ngay teg mooy risque de l'ordre euh, li mu wax nag mooy trouble à l'ordre publique euh, te loolu waruta doy nga aaye dafay bu trouble bu ordre public mën a doon a troubler yow da nga am wareef la ci yow mortalité wala yow préfet bi nga fexe ba encadré ko ba kenn du ko mën a troubler ordre public bi ba ñuy dox duñ kii loolu mooy préfet bu baax. Mm-hmm. loolu mooy wax ji. léegi yow boo nee boo ci boole woon tey ne amoo effectif bu dey suñ demee fekk fa junniy takk der lu ëpp li nga xam ne buñ buñ ko doon amal moom nga fekk wax jooyu day daal nekk lu dul dëgg moo tax booy gis lettre mi yenn saa yi ngay gis yëpp doo ci gis loolu. kon moo tax bi ñu xëyee nekk ba démb te boo koy tere nit ki war naa jot lu mu néew néew 48 heures avant xam ne danga nga koo tere parce que daf ko war a attaqué maanaam lii mooy jaay doole réew mu ñu nekk di pëccëxoo di wax nit ñi jëfi maa tey mhm. man nag bu desoon ci man xam nga man rek du ma F24. mais bu jotoon seen autorisation bi ngeen doon bi ngeen doon. non waxuma man neewu ma la wax. ba léegi wu ma autorisation. man ci samay kàddu doo gis même bu ñu tegoon ne autorisé du ma wax autorisation baat boobu dama koy moytu. waaw ah, d'accord mais c'est-à-dire non comprendre comprendre fi dafa am lu fi am quoi dañuy gis ñi posté di def autorisé marque autorisé. peut bàyyi ba ñuy def loolu nga laaj leen ko. man yow yaa taxaw fii sax ne autorisé interdit wuñ waaw kon ça veut dire autorisé nañ waaw kay boo lu ñu interdit autorisé nañ ko. waaw kon moo lay xamal ne yëfi yabaate la mortalité def. <coughs> maanaam nga bàyyi ba bés bi. fii may taxaw di wax ak yow ba ba may ñëw maa ngi indaale ne kenn interdit ko ba fii nii ci plateau bi laa ko defee ñu brandiraan ma mbir mi wane ne interdit nañ ko li mooy yabaate quoi li mooy réew ñu jox la ko. mais est moom moo ko autorisé ndeyu àtte ji mooy autorisé. Mahfouz dafa am loo xam ne waroo koo wax man waruma koo wax parce que bi ñun ñëpp Mor Tall Tine waru ko wax Macky Sall waru ko wax constitution bi mënuñ cee teg. ne bu ñu la ñëwee pour dox doxu ñax. mi ngi moom laa wax interdit. moo tax man dama ne la mais suñ leen autorisé pour ñu def notifié tamit dañ notifié ah, xanaa jox leen ah ñu génne moom laa lay wax bu fekkee ne ci def ngeen bind jox xam nga ma foos lay wi ngay wutal lay wi ngay wutal ñi nga xam ne nekkuñ ci yoon moom nga war a bàyyi non si danga man bu ñëw ne la manifestation ci réew mu ne am yoon la ñu nekk déedéet yoon nag lañ doxalut fii dañoo ah, jalgati yoon te waroo leen cee dimbale manifestation buñ ko déclaré gën ngaa néew ñetti fan parce que ñun demuñ ba ñaari fan des ñu di ko déclaré wala déclaré wuñ ko vingt jours respecté nañ li ñu li ñu war a def li ñu yoon may moom kon bu dee moo jalgati da nga koy wax ne ko dafa jalgati manifestation ku ko interdit wut c'est autorisé notifié woo yow nit ki ba mu xëy ba ci guddi ba mu xëy tey li ñu jàpp tey ji mooy. loo xam ne interview léegi loolu ko daan defee xanaa midi ngeen di woote. conférence de presse yoon ah, bële mooy lii ma lay wax. mooy lii ma lay wax léegi nag mooy lii ma lay wax mbajam kanam borom a koy fajal boppam yéen ñëpp li ngeen war a njëkk a def mooy reeteet wax na lii yëfi yabaate la ñu xam ne moo nekkul ci wax mais da ngay jéem ko jéem a sippi saa wolof wala ñoom F24. waaw parce que ñoom lañu autorisé wu kii wuñu wane wuñu kayit buy wane ne autorisé te fekk kayitu autorisé wu wow tappale la manifestation kenn du ko autorisé dañ koy interdit. Mm-hmm. boo ko interdit wut c'est autorisé. yéen a xëy non non dama ne du yéen nday àtte ji constitution bi moo ñu wan nañu. yéen a di di di. partagé na waaw waaw bien sûr. parce que ah, kenn kenn wu ko. manifestation bu ñu wu ko woon xam nga xam nga dox loolu ma. xam nga ñoom ñoom dafa am lu ñu leen tàmmal. manifestation pour ñu autoriser leen ko dañ daan bàyyi ba bés ba comme ba midi léegi ñoom ñoom dañ ne comme toog nañ ba ci veille ba jotuñu dara donc c'est autorisé. loolu sax jarul jot dara. def gars yi noonu lañ daan def quoi parce que nañu jël les devant pour dem def installation yeeg yooyu quoi. non ak nag bett leen. léegi nag yow bu ñu ko defee xam nga lu ñu la doon waajal yow tey soo demoon tey amoo temps affaire bi daal jasakalisé ñu ne voilà ñu ngi ni kenn topp leen. Mhm. pourquoi ngi tooñ de jasakalisé mooy mooy mu wéet. xam nga fi ñu toll nii lu fi jasakalisé wul sonkorisé. xam nga yaa ngi tooñ maam non bien sûr mais parce que da nga maa tooñ. xaritu Moustapha moom ñun. parce que non non loolu lañ doon bëgg. yaa ngi xam nga dafa loo xam ne gis nga ñun li ñuy café nii. <laughs> gis nga c'est très dangereux. fi réew mi toll nii. Mm. maanaam léegi au lieu Mahfouz wax ak euh, Mortala Tine mm. léegi saa wolof wala F24 la koy sippi yéen yéen a taxaw fii naan c'est autorisé te fekk ne kenn autorisé wu problème bi du autorisé da waroon a wax interdit wuñ ko baatu autorisation moo tax man saa yu may wax ak F24 wala fu may mën di wax dama leen bàyyi leen baat baat yi ñuy wax xam nga ñu ngi wax nguur moo tax ñi gars yi di nguuru koo ne nguur kay nguur gi ñun baadoola yi man damay baadoola kenn man ñee maa leen fa teg maa leen gën maa leen fay ci samay waaw la ñu war di dox waawu askan wi. ba pare ñi ngi nii di di di di salfaani léegi interdiction interdiction bi d'accord xam naa ne ah. metti na <laughs> non non non yow mi def la war a metti oui ma waaw ah. man dama mars man mars ma non <laughs> non yéen waa F24 yéen yéen yéen def seen seen euh, euh, demande euh, pour manifester. demandé wuñu dañoo déclaré. bàyyil demande. bàyyil baat yu bon yooyu ngay wax. <laughs> ba léegi ba léegi laajuñ digal dañoo dañoo yëgle. loo wax baax la bu ngeen yëglee tamit nee na leen bu ngeen fi def te bu ngeen fi demee fee daan ko dee leen seen digg. leer laa la wax. waaw xam nga man dama laa wax. léegi bàyyi loolu. dama laa wax ne la ñun. léegi bàyyi loolu waaw bàyyi loolu. waaw léegi bàyyi loolu loolu mi ngi des ci. loolu mi ngi des ci loolu lii ñuy wax nii nag wax dëgg yàlla am parce que bala lii bala nga ne am ne fa. Pape Djibril Fall bu fekkee ne caay-caay gi ñu nit ñi di jëptee. waaw bàyyiwuñ ko. Mm. du dem élection maanaam bala nga ne am ne fa. Mm. dañ koy kale. waaw non waxuma sax waxu kale. non lii ñuy def nii bu fekkee ne jaay doole ji ñu ngi bàyyi muy jàll maanaam kii li ñuy wax nii tey li ñu li ñuy wax fii nii tey dara gënu ko far dëggantaan programme ak yooyu war na ko jàllale wala de mais lii dara gënu ko far parce que bu fekkee ne jaay doole gi mooy am nit ñi ñu leen neex ñooy voté wala nanga man ngay dem ñu xool la xam ne kii saa wolof la mais ñu ñu ñu la parce que jaay doole jaay doole la rek ko mm. su nit ki bu xasee ba dugg ci yoonu dictateur yoonu dict da nga dem ba kenn dootul wax foofu nag gis nga dañu wax ne luy yee naanug yuur su yegsee ci doq faxas ko dafay dafa dafa dafa yell dafa war. ñii nag ñi ngi bëgg naan suñu. yuur ci quoi luy naanug yuur yow loo xam ne gunóor boo xam ne day naan yuur. di commencé dox jóg sa tànk yi yéeg ba ci ba weesu ginnaaw ba ci dox. xam ne jege na yuur gi waaw. maanaam ñun fi waaw. lii raam ci ñag bi genre yooyu en bien sûr lii mooy li nga xam ne moom moo moom moo nekk di ñu def Macky Sall won nañu ne maanaam nekkatul nit koo xam ne ni jàmmi Sénégal daf koo ñor parce que réew ku ko jël li Ablaye doon def ci ay irrégularité akas néew nga taxaw di ko ñaawlu di victimiser sa bopp déggal mbay jaay euh, mag mu doy moomu maa ngi jéem a tënk sama bopp ci di wax mhm. nee na Senghor nee na woon démocratie justice amu ci pour man loolu ay kàcc la fan la ko Senghor wax parce que Senghor amul doom quoi amul ndono fii quoi lu la neex nga fenal ko quoi maanaam loolu la ñuy wax parce que Senghor nag am na fu mu yegg même bu dee mën nañ ko xarab mais yitt yooyu noonu maanaam dafa sax yanuwul maanaam léegi ñu waa ji laaj ko ne ko euh, mu ne noo mën a téye démocratie muy layaam layaam yi ne baax na ko quoi pour nguur dañ koy dañ koy téye nan nga bëgg a téye nguur réprimer nit ñi jaay seen doole def yëfi maa tey nit ki même bu dul dara moo tax keroog bi nga naan chaque jour ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen mars wala nangam ma ne la dañuy déposé nga ne ma chaque jour ñooy déposé lii la quoi parce que au moins mi ngi commencé feeñal boppam. war ko joxe 48 heures joxe woo ko ba démb ci guddi liñ mujjoon di tàmm sax defuñ ko nga bàyyee ba ci bis bi nii nii nii ba nit ñi xëy war a war a dem amal ko nga taxaw ne interdit nañ ko après nit ñi bala ci quoi. du ngeen def yéen léegi. lu ñuy def ci kanam tuuti man du man dong duma ma F24 waruma wax ci turu ñëpp parce que li may bañal mhm. Macky Sall anti démocrate bi mu nekkee man Saa duma ko def. am na loo xam ne dama war a taxaw ak ña ko séqal ñu def ko waxtaan ci xalu ban taxawaay lañ ciy def. loolu ñoom laa koy bàyyi léegi. léegi sa commentaire bi bi nga war a def ci euh, li nga xamante ni Balla wax na ko fi da toog tuuti nga nga nga nga dallu tuuti nga nga nga respirer tuuti ah. non non bàyyi ko <laughs> bi metti quoi si <laughs> xam <laughs> yi moo moo metti quoi léegi hmm. no tuuti naanal ndox tuuti nga nga dal après mu ñëwaat ci yow Moussa Ba sa commentaire ci euh, li nga xamante ni Balla Balla wax na ko fi Balla Gaye waaw Balla de wax na lu wax wax na yu am solo parce que toujours man dama ne débat bu ñu koy posé da nekk benn débat programmatique maanaam hmm. mu noon débat boo xam dafay tegu ci programme euh, ngeen am fu ngeen jëmee réew parce que réew tamit c'est du sérieux tout à fait ma constaté aussi tamit ci ay explication gis naa ne c'est une structure rencontre am na ñu ngi góorgóor def ay def ñii def ay mbir ak yooyu yëpp am na yëpp am na solo mais pour man dafa am benn situation da ngay nekk ci benn situation bu compliquée mooy bu fekkente ne dafa am benn pàcc ci ñoo xamante ne dafa am bët bu ñu leen di xoole pour man am na liggéey bu ngeen war def dans sens là. Mhm. wax nga ko sànq juñu nga ko say kàddu nga ne dafa mel ni ba ñu waree woon communiquer nañ waroon communiquer communiquer wuñu ko parfois euh, dañoo gis loolu tamit seen leader mu toogaat conférence de presse mu ne dafay porter plainte xaw ma. Mhm. ci ci la amoon foofu noonu tamit après plainte bi xamuñu fu mujjee. gisuñu mhm. suite yooyu ñan lañ ci porter plainte ñan ne moo ñoom Khalifa Sall fa nekkoon nag ñeneen ak ñeneen Euh, am na am na yoo xamante ne ci biir doxalinu les les les serviteurs actuellement am na lu exposé mu leen exposé boo xamante ne euh, dama yaakaar ne bu ngeen moytuwul def dina leen gàllankoor parce que comme ni mu ko waxee ni ñu ko waxoon bee passé rek ku àndul ak intercoalition bi ñu nga àndal mais actuellement nit ñi dañuy commencé di wax ay kandaaw système kandaaw anti système. Mm-hmm. yaa ngi sànq euh, l'enquête mu leen boole ci outsider yi. il a du mérite parce que boo xoolee ñu fa def bu nee Thierno Alassane Sall indi Bougane Gueye Dany ñooñu ñëpp. li ñu màggee euh, Pape Djibril Fall kenn xamul lu mu daw bañ ci politique kenn xamul kañ la woon. donc boo ko dugalee mu nekk ci biir ñu boole ko ci outsider yi mérite la. mais mérite boobu tey jii am na loo xam pour man il faut mu mu mu joyanti ko. Mm-hmm. par rapport ak euh, li nga xamante ne moom lay doxalee su ko defee euh, amaana mën na yegg li xam ne moom la am espoir parce que am na ñoom ci ndaw ñi moom lañ jox sa bopp yëpp am na mais pour man daal am na yu bëri yoo xamante ne il faut ngeen rectifier ko. su fekkente ne bëgg ngeen affaire bi gën a jël forme gën a gën a gën a avancé notamment euh, lu jëm ci euh, seen diggante ak ñenn ñi jàpp ne euh, da ngeen di rouler pour nguur gi wala bu ngeen rouler pour nguur gi da ngeen taxaw taxawaayu neutre di seetaan parce que dafa am yu bëri yoo xam ne ni dañuy jàpp ne injustice la wala ñu jàpp ne jaarul yoon fañ leen doon xaar c'est-à-dire Pape Djibril daan gis mu toog da ngeen na chroniqueur ak du benn mu toog na mu daan waxee ak lañ doon xaar ci moom bu ñëw ci langue politique mu nekk boobu c'est-à-dire bi wax ji bañ bi fipp bi ñu gisee ko noonu ci langue gi. Mhm. mais dafa ñëw ci pour di gisuñu Pape Djibril boobu mu ñëw indi taxawaayu neutre c'est-à-dire euh, moom neutre boobu sax moo koy ba assemblée nationale moom taxawaayu neutre boobu mu amaat. Ah dem dem ci non aligné. waaw ah <laughs> waaw parce que man bon noon laa gisee je peux me tromper donc loolu laa loolu laa moom ci lu may wax peut-être amee loo ci rebondir. mais tamit bëgg naa bëgg naa la laaj foofu tamit Pape Djibril Fall su fekkee lan neutre bi néew lan nga tudd. waaw lan ah, mooy tudd neutre parfois damay neutre man bëgg naa ñu tekki noonu euh, pour ranger wu wala dafa ñëw pour jëmmal boppam euh, tracer yoonam pour mën a dem pourquoi nga ni dafa neutre bi moo ko moo ko xaw a sonal. waaw je ne dis pas je ne dis pas ranger wu. parce que il n'est pas. obligé mu def parti. non non il n'est pas obligé mu rangé rangé wu mais mu tranché carrément yenn yenn yi bu mbir amee mu taxaw carrément. comme ban cas par exemple. tafe ci tafe ci ku jegi. comme benn cas ban cas ba ñu xam par exemple ku jegi kat. ñi ngi nekk di subir injustice euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi dissoudre parti ñi ngi tëj diw ñi ngi def nii def nii. mais mais mais mais Moustapha liñ ci def loolu liñ ci def ñoo noonu loolu liñ ci def. saa may ma tuuti loolu liñ ci def. Mm-hmm. gëm naa ne benn leader politique ñu ko def ko fi. ñun on est parti jusqu'en France France 24 dem TV 5 Monde. Mm. on a porté ce combat la pour dire que déjà parti politique ci fi démocratie toll waruñu xalaat Sénégal déjà on a combien de parti presque on nous parle de quatre cent et quelques partis. Mm-hmm. mais les parti partis yi nga xam te ni ñoo actif wax dëgg fa yàlla boo ci bëggee jël parti bu mel ni Pastef nga ni da koy dissoudre loolu aussi day tey xel. Mm-hmm. ñu toog ko dénoncer ko la condamnation de de de de de Ousmane Sonko dañ ko dénoncer. Mm-hmm. fu nekk lañ ko dénoncé heure bu ñu toogee assemblée nationale le ministre de la justice bu ñëwee bu ñëwee toog Pape Djibril Fall bu yéegee au perchoir li muy njëkk a wax moom mooy l'instrumentalisation de la justice parce ñun li ñu jàppee nguur comme ni ko saa waxee bat sax dafa xaw a doy waar moo tax gars yi dañuy nguuru rek li ñu jàppee le pouvoir mooy c'est un outil d'instrumentalisation de la justice et d'enrichissement illicite ñun noonu lañ ko jàppee bi ministre de la justice ñëwee wax dëgg fa yàlla wax nañ ni ko ni ngeen def le cas Karim Wade les deux cas def ko xalifa Sall bu ñu juumut moom ngeen bëgg a def Ousmane Sonko te jàppoon nañ li tax nit bañ a bokk ci élection ay crime la war doon mais ay diffamation boobu à l'époque loolu moo xewoon mhm. par rapport à la condamnation également bi ñu ko teg li ñu doon xaar viol la woon ñu ñëw ñun ñu ay corruption de la jeunesse et cetera bon les sénégalais n'ont pas compris foofu yëpp ñun aussi dañoo ànd ak euh, l'opposition tranché ci nekk à leur côté défendre ko maintenant dafa am moment boo xam te nii bu jotee aussi da mën a dem boo waxee loolu ba pare maintenant da dem nga ko nekk am na parti politique yoo xamante ni ou bien des leaders politiques yoo xamante ni ils ont décidé de faire ça leur arme leur combat nous on n'attend pas la balle au rebond wax dëgg fa yàlla am na ñu koy def. dem nañ seen choix la quoi da wax sa après. cest à def à chaque fois bu injustice amee. on fait un

que ce soit peut-être am na émission ces dernières émission boo ko dégloo da nga naan mais attends euh, li muy wax wax dëgg fa yàlla néew na candidat yu koy wax wax dëgg fa yàlla euh, yàlla rek ma moom moom ma tiim néew na candidat yu yu yu yu yuy jam baaraam wala di duut baaraam fi mbir mi di métti. non moom ah. raay nguur gi mooy lan c'est-à-dire vous me donnez point wala nga jox ma benn constat. ni ma fii nii nga dégg li mu yàq gars yi wala ni mu leen attaqué wala ñu ñu mën ma wax par exemple bu dee ci secteur d'activité boo jël secteur d'activité boo jël que ce soit à l'Assemblée nationale ou bien dans ses émissions secteur d'activité boo jël bu ci duggee da ciy wax lu bari bari bari mm-hmm. wax na ko sànq par rapport à la souveraineté énergétique liñ ci dañ cey wax ba sonn woyefal bi je crois ça moo ko doon wax naan mm-hmm. bu ñëpp xam nañu woyeful je pense que ni loolu la bëggoon a wax mm-hmm. loolu la baat boobu la bëggoon a wax mais da am neneen nu mu ko taxañee mais woyefal bi courant bi mi ngi bëgg nit ñi surtout vous qui ki êtes dans le dans le dans le secteur privé nga xam te ni da ngeen yor ay entreprise mhm. ci yéen gën a muté mhm. rawatina sénégalais bi donc fu ci nekk da ngay wax maintenant nag nit ñi réew mi dafa am lu lu lu fi nekk mhm. yéen médias yi yéen a gën